ku doon laajte tapis rouge ubbi na supermarket bu nganda nganda nganda nganda nganda A Touba Daaru Marnaan ak infa doon len styliste modéliste bu wóor bu ñu ràññee ci réew meeg ci àdduna bi Omar cheveux 100% naturel Omar cheveux originalité personnalité qualité ngay am fofu de Bay Alioune Mbodj gaaw ci katan faru rap Nop ak kuy ut kayit Bay Alioune Mbodj mu ngi fii ci Scat Urbam ko ñu dibiteri Korom ak Faye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 ça waaw dama génn. waaw Major. Mhm. fii am na fu ñu mën a toog waxtaan tranquillement ci kóor ah, hmm, Major. Mhm. jot na nag ma wax la lépp. jot na ci ma jox la responsabilité yi ma yoroon yépp euh, ndax man na nga xam bis ni ki tay sama dund mi ngi tënku ci ñaar jàkk ja ak kër gi compte yépp joxoon naa la ko fi waaye léegi dama bëgg bàyyeeg lépp gestion affaire yëpp nga yor ko même mbiru famille bi lépp bàyyee naa ko la teg naa ko say loxo bëggoon naa nag waxtaan ak yow ci famille bi ndax lépp leer ci sa bopp. pare dañ la jàppoon si dañ ma jàppoon. mais am liberté provisoire. Euh, mais entendre entendre après même aussi d'ailleurs dégg que une convocation. yow avez convocation. si si j'ai reçu convocation mais c'est pour la semaine prochaine. toutes les preuves vous accablent et vous aviez fait des aveux circonstanciés. Et justement, vous aviez déchargé votre fille pour prendre sur vous la responsabilité de tout ce qui s'était passé. Est-ce que vous confirmez vos dires Monsieur le juge, ce que dañ ma dóor ay dóor yu metti moo tax ma avoué ko li ma bëgg a waxtaan ak yow tey mooy histoire famille bi histoire sa maam Maba Ndiaye moom laa la bëgg a leeralal tey pour mu leer ci sa bopp nag faaw wax la première partie bi ba pare mooy jamono ja Maba Njaay doone xale bu góor toll ci diggu dooleem booba entrepreneur la woon yàlla may ko soxna ñoom ñaar ñu am ci benn doom muy man mii ca quartier bi ñu dëkkoon nag dafa amon xale bu jigen bu rafet tuddoon Ndey fatou ndjay ñu bari daan ko wax Fat ndjay Endo ndax taaram Fat ndjay Endo mum ben la won ci bayam bàyyam nag yoroon suuf su bari fii ci région Dakar suuf soosu lu ci bari titre foncier la woon ñu immatriculé ko woon ca jamonoy tubaab ya jamonoy colonisation bi Fat Inde moom sa maam Maba Ndiaye da ko bëggoon bëggoon koo takk mu bañ nag ndax nee na moom du doon ñaareel ñu dem tuuti mu feebar feebaru xel ba mujj dof ñenn ci quartier bi sax dañ ne sa maam moo ko liggéey ba mu dof waaye moom loola weddi na ko nee na amul Ndeye Fatou Ndiaye ñu koy Fat Ndiaye Indo ba mu dofee da doon taxawaalu ci mbedd yi ba far am ñeenti doom benn bu góor ak ñett yu jigéen ñett yu jigéen yooyu ay seex lañu bi sama yaay di waji genn génn nena ma dom yoy yeb mabba nyaay di sa mam di sama bay mo len jur ñetti cheikh yu jigen yoy moy nar banel ak Mariama man nak bi liggey liggéeyee impôt doon naa gëstu suuf soosu mabba Ndiaye doon jaay di gëstu droit réel yi ci laa ba xam titre foncier yooyu Ndey Fatou Endo moo leen moom yaayu naar bànneel ak Mariama moom moom suuf soosu sa maam entrepreneur la woon moom itam liggéey na alal joo xam ne moom moo ko moomal boppam man mi it durant toute ma carrière liggéey naa lu bari am na investissement yu bari yu ma def loolu bëgg naa mu leer ci sa bopp. mën naa gëm li nga wax. mën naa gëmit ni euh, dañ la contraindre moo tax nga def say aveu waaye li ma mënta gëm mooy dem ci yàlla xobs ni lu mu wax teguwul fenn xabs xolu ñaan dong moo ko jàpp te loolu noonu du tey depuis ma nekk senegal mi Sénégal 1987 sama xabs topp di ma lu nekk jéem na ko ci man pour jot ma amul leen lu muy def pour takkal ma rey sama sœur bëgg ma ko jiiñ man te loolu noonu man def ma ci dara xabs agresseur la criminel la day violé loo xalaat lu bon lu nekk rek xabs da koy def loolu doyu ko mu ni man lay takkaat man reyuma sama sœur fii amul kenn ku la fi mën indi preuve bu wane ni man maa rey sama propre sœur ndax reyuma ko. salaamaaleykum. boo toolee ba. eh maa fii. mais sama mun naa la damay sa. eh. ça va bon tu vois. ça va ñu ngi ci jàmm. loolu baas. comment tu moom damaa nam sama nekk nam sama néegu yaa. ah allez-y. xaar ah, ma xool néeg bi ñëwaat. eh eh kaay kaay boobu ba ma toog fii di la xaar nga naan ay damaa nam ma nekk. eh man xolal dëkkuma Dakar laa la wax j'habite à Mbour. wala mais tonton kii da wax ak moom. Anas je vais je vais voir mais elle a raison. fi ma toog maa ngi ak relevé téléphonique bi nga xam ni yow ak le sieur Xabs euh, def ngeen ko ci jamono ji nga xam ne mooy meurtre Mariama am na li ci fës mooy jot ngeen waxtaan lu bari Naar Diop loolu leen waxtaan. soo xoolee ci sa dossier bi nga yore appel yi am yëpp Xabs moo ma doon woo di ma menacer parce que sama période mariage yu doom la woon. ma ko xaalis mais joxuma Monsieur le juge, lorsque Mariama a eu son accident, ma cliente a été l'une des premières personnes à aller à l'hôpital et à être au chevet de cette dernière. ma sàcc wax la lenn lu ñu bëri xamul mooy Mariama mii Mariam di wax muy victime c'est sœur jumelle

war naa tax ma rey sama sœur jumelle histoire bi may expliqué yëpp lu ci bëri xam naa ko li ma bëgg xam mooy est-ce que Mariama mi ngi dund patient bi nekk Paris est-ce que Mariama la te papa bu nekkee Mariama mi ngi dund ki ñu enterré kan la et lu tax waxoo ko woon joor amaana papa lu bëri di ko dal bul fàttali joor papa dof na fi ne ci mbedd bi di wër lu bëri daal ko. Madior dëgg la Mariama mi ngi dund mi ngi Paris man mii maa fexe nu ñu ko évacuer euh, boo fàttali ko yéen bu ngeen daan dem hôpital man daaw ma ànd ak yéen fii laa daan toog ci kër gi. ndax bëgguma woon ngeen am ay soupçon euh, hôpital ba nag dafa amoon benn ndaw su accidenté woon ay mbokkam jël ko mu yàgg fa lool bon kenn xamu ko xamuñu tamit ay mbokkam léegi ci ci la arrangé waa hôpital bi fexee ñu ñu defar ko muur ko ndaw suuf su ndaw suuf lañ leen jox ngeen ngeen suul ko Mariama bi mu génnee commande ximali ko li tax waxuma leen ko ñaara tax benn bi bëgguma woon naar Jóob génn échappé à la justice bëgguma woon mu génn ndax jëf ju ñaaw ji mu la def def ko ñu bari dama bëggoon mu fay ko moo tax waxuma leen ko baneen bi mooy Mariama bi mu ximmil ko génn ci coma mémoire bi dafa effacé wu xamatul dara xàmmewul kenn. xàmmewul joor mi sax nga xam ne moom moo ko jur. joor sax xàmmewu ko. te euh, major ay tëf mii di liggéey ak may sax sama doom la. may sa foog nga dimbali ma. gis nga instant bi dama jaxasoo xaw ma sax fan laa féete médecin bi nga xam ne chaque jour mi ngi ñëw sama kër guddeeg bëccëg suba ak ngoon laa bëgg xam lan la fay dox si Nardi bu ma sàgganee dina génn prison di doxi ay soxlaam te duma ci mën dara te gis nga loolu duma ko seetaan Nardi dama bëgg ba ba muy dee li ko desee ci dundam mu paase ko ci prison ba bés moo ko seetaanee mu génn mooy man li war sama diggante sama yaay respecté wumako mais légui qu'est-ce que tu veux que je fasse man douma policier. légui yow xamo nak Dakar amna ay détective privé ñu ñu mëna jappalé si yana bon amna fi mais bo xolé ñoñu ay problème sey problème affaire lu jëkkër la mais ñi fi hein bon. léegi nan laa dafa ñëw fii ci dëkk bu sell bi dëkk bu tedd bii di Touba dëkku Cheikhul Khadim seen teranga bu Touba nekk fii si xayra jàkkaarloo ak kër Serigne Modou Bousso Dieng seen teranga day supermarché yu am lépp. boo duggee vous fay fekk njëg bu poissonnerie droguerie électroménager alimentaire vaisselle bazar. ak wàccaayu màggal gi mën ngeen passé seen commande ci seen teranga bi leen gën a jege lépp lu ngeen fa jënd mën nañ leen ko livrer ci bu Touba bi en face banque BHS gratuitement maanaam du ngeen dara. agsi leen ak ci seen teraanga bu Touba. nekk fii ci xayra jàkkarloo ak kër Serigne Modou Bousso Dieng seen teraanga day supermarché yu doomu réew mi taxawal yéen waa Touba xayra Mbàkke Daaru Marnaan Daaru Xuddoos Guy Mbind Ndindi Jannatu Daaru Minam ak li ko wër nee naa leen ak seen teraanga seen bànneex mooy suñu mbégte central équipement De dafa centraliser les lo soxla ci équipement cuisine si c'est ndaje dîner, yu mag lu si mel ou wala gamu ben beurep rek sa aajo daal di faju mané di nga fa am thermos yu mucc ayib série de bol inox muna wala le bol aji jara plat inox yu dëgër glacière yu bax yi té am garantie Tanal si carafe ngonal yi Mané verre à eau ak verre à boisson yi dal ak baraada yii Mané fi am na ay paan yu jongama Soban ak lave-main bernde te des na jamono yi nga xamni fagarou dafa gëna am solo central équipement indi na ndimbal bu baax lu ci melni emballage alu barquette ay gants ak tasse à jeter en papier central équipement di la jox lepp luy taral kër di bakkanal dund gi mo leen accessoire de décoration yi dra de lit sax dessul ginaaw central équipement Topal tectel yi bu jaaree buntu Pikine da ngay top déviation bi ba ci station Ciel Oil bo jéggee barrage bi romb sifa première mbedd bu nak da ngay dox wëral rond-point e koñ bu bi à droite central équipement ibbil na leen ay buntam du lundi au samedi de 9h à 18h30. n'est-ce pas Pape Birahim dafa jënd médecin bi fi dëkk bi bo amé xaaliss lepp loo bëgg lijjanti da nga koy lijjanti mais ñun tamit dañ ko jënd dañ ko jox xaaliss bës buñ ko joxé xaaliss je te promets que lepp lu bëgg xam suba ba ngon dinañ ko xam c'est ça c'est ça la solution. sa idée bobu man je suis partante lu mu laaj man na ko joxé mais duma am temps pour gérer ko que dama la koy je nga gérer Je Ni rek dem marché Si je un avis de recherche Je ne sais..! vraiment am naa pas quoi non mais sama mais famille bandi Tu nga di ni comme ça activité tu n'es plus à l'aise mais Dior qu'est-ce qui se passe.

boo gisé sax muy man di sa yaay nanguwu wuñu jël jank buy fanaan wala bu yendu ci kër gi loolu moo tax newoon naa ko nag mu ñëw ci kër gi ma dajale famille bi présenté ko waaye moom dafa bañ ndax nee na sa yaay da toroxal di di sama dundu dal ay ta tek naa ko say loxo te ay ta yam ko ñëk xam ndax nee ma bi ngay wër jor sonn lool mom mo la wonon kër may kon na nga fexé ba mu intégrer famille bi yaatu ci famille bi te nag maa kilifa borom kër dañ mën a garder secret day am bàmmeelu biir mën a denc lu bari dañ mais xel dafa mën a wees teg fi sans pa nga naa ma seetee xel mais may ma panier, panier, panier. Un panier. Tu rentres dans la cuisine. Pourquoi tu n'as pas de chute de cassette Mais est-ce que tu m'as pas de bonne Hey, c'est pas la panier. Ouais, l'Iran, il y a Comment ça, Dieu Panier, comment on dit que tu es connu Moi, je ne sais pas comment panier. Qui a appelé le panier Lina tay jox bi mi démé marché la. légui na yaa ma top ko. ma top ko ba dugg kër faram bi jël pañe bi tek ko ci buntu kër gi ma jox ko indi ko. <laughs> ki jam tay lu way do neub feñ na ma jox. mu ci suuf ak papa ok <laughs> lool la bëgg nak nañ dem fekk la ci suuf xamal leen ni bande bu mag la ni la olof jay nan soppal te bul top ma. panier cher so génnee tu en achètes un autre c'est plus simple. et puis c'est pas cher c'est pas cher. panier cher lu ne leen ko wax. mais man dama te fi panier bi jënd kay laay on bu dee sama dugub ko dugal ci bir mbuus. c'est pas grave mais attends toi et major là mais qu'est-ce que vous attendez. C'est là à nous préparer un enfant, à nous faire un million de filles. Nia, rek léegi mu ñëw. eh c'est pas de prier il faut faire. papa. Euh, <laughs> est-ce que xam nga ne bien, Birahim jour de Aïda. Birame Ndiaye. Quoi..? il a un autre enfant. je sais pourquoi il passe avec trois pieds même. c'est un capot c'est eh, c'est là c'est un capot. C'est nga comprendre na ko bu yag dama la cee waxul woon dara rek ba pare may seenu rek ba xam loolu man ak sama yaay ak Pa Birahim dem nañ ba ngëriñ séeréer biir kër ayta ah oui en tout cas les deux complices là les deux complices c'est Birahim ay Garmi c'est des capots c'est des c'est des colonels man de sunu jour un civil ci guddi gi la ma maajur expliqué lépp parce que le même jour ba ma jógee mairie ayta ak Anta dañu ñëw kër ga mais sama bàjjen bu mu gisee ayta ku mu ko gis ay butitam da ko toroxal ci guddi gi nag ci la ma maajur expliqué lan moo taxoon ma réagiré noonu mais bon. c'est des problèmes de guerre ces gars-là. c'est un capot. Trois pieds comme ça, trois pieds comme ça. Alors, bonne. Euh... C'est normal. Est-ce que c'est vrai que Agnès est sœur jumelle Oui. La sœur jumelle. Est-ce que de la it ni yeen ñet yëpp ci mbedd ngeen juddoo te seen yaay it nekkoon nañ koo xam ne xel mi desoon du courage sache que ce TYFI, c'est une importance capitale parce que Nardio. de prison à donc ce témoignage c'est tellement important nga yaakaar ni Naar Diop mën naa commandité meurtre mariam dede yaakaaruma loolu ndax yaakaar naa ne xamul lo te ko def papa il est temps que ñu wax joor dëgg bi yëpp parce que war na koo xam déet déet xaaral ba Mariama gën a tane am na loo xam ne danga koy bëgg a réere mbir joor jigéenu wérul la te jigéenu wérul dañ koy protéger du lépp nga koy wax gis nga yéen ñaar nii tàmm ngeen lu ma leen wax ngeen weddi ko jàppee ma dof joor dafay njaaloo waaw jor dafa am far la wax dama ko tam nak saa ma ko yónnee marché mu taxawaalu 10 h bala ma ci egg 14 h man mako top lu mu dem ba dugg biir këram bu keur faram bu mu duggé keur faram tek fa pañe bi gis na ki kewé nak mu ngi ni taxaw fe xelam bu bu len ko wax dara man mi nday yumbi ligi mako yoni mu topal ma jor te bu mu topé gis na firnde baangi ni jor keur faram lu duggoon léegi nag lenn laa lay wax joor yàgg naa la wax du ku baax ma yàgg ko soupçonné loolu mais wax sa papa di ko jàppale tey firnde baa ngi nii preuve yu leer nañ dara du ko dindi gis nga doom ji mu ëmb nag juróo ko wa major yo foo nekkon bi ma ñëwee ba tay ma ngi lay gisuma la fenn ci kër gi yëg na ci ko ba changer wu xana namoo ma woon Jor, bul ma fonto yow lañu wara laaj fan nga nekkoon ça se voit pas que ni marché laa jóge major marché nga jóge waaw ana sa pañandiku li sa kanam lan la siwo Panya bee ngi nii ba ngay génn sànq ci kër gi pañe bi nga lah. maa jor pañe pañe la lii da ngay fen taxaw nañ yegg ci kaw ma expliqué du waxu fii gis nga maak yow am na ñu ñu bëgg jaxase maa jor nañ dem ci kaw ma bul ma laal marché laa jóge da fen fenu ma laa jóge safar nga demoon Madior baal ma tayuma ko li ma wax moo ma tiital tayuma ko marché laa jóge sama valise dafay génn sama kër ci biti. dama jóg valise yi na dellu ci biir kër néeg na dellu ca néeg ba joor fenn na génn du génn kër gi laa wax gis nga joor mooy kiy génn. Boileau, la qualité accessible à tous. Punch, plus de saveur. Boisson yi gën a neex ku doon laajte tapis rouge ubbi na supermarket bu nganda nganda nganda nganda nganda à Touba Daaru central équipement molin leen Wassali gunge wasallimalay suma ya rabbana ya rabbana ya rabbana Yarabana, rabbana ak infa don len styliste modéliste bu wóor bu ñu ci rew Omar cheveux 100 naturel cheveux bu baax bi nak xalé jigen ni jarta téléphone bi 77 952 94 51 77 952 94 51 Omar cheveux originalité personnalité qualité ngay am vous de. bay gaw ci faru nopp ak kuy ut kayit by Il boch. mu ngi fii ci escape Urbam ko ñu dibiteri Korom ak fay téléphone 77 198 71 11 78 545 44 30 man Marichou duma ko baye ak kenn ndax laataa ma def dara damay jëfandikoo sama poudre magique sourire bi nga xam ne mooy jox samay bëñ éclat bu machallah